asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah del siwaat nañ ci sunu bindu juróomeel ci téere bi di nahju qadaa il xaaj ñu war a tàmbalee tey ci waraahi xaq dil jalaali l qaadiri fihim li wajhihi ka qawli shaaciri mu ne waraahi na ngay xaq zil jalaali àqi boroom màgg gi alxaadiri kay aji àttan fiihim ci ñoom mbindeef yi li wajhihi ngir jëmmam moom yàlla ka qawli shaa'iri ni ki waxi waykat bi yax ni dafa jubloo wax ne anna min xusnil adabi bokk na ci rafeti teggiin anturaaya ngay sàmmonteeg fil xalqi ci mbindeef yi xaqi xaaliqihim aji bind seen aq yàlla mi bind rek jalla màgg na waala tamu kawe bi àntakkoona ak ci ngay nekk itam maahum di ànd ñoom kama qaala ni mu waxee ashaaciru waykat bi min baxril basit ci baxru basit waykat bi dafa waxoon ne irham na nga yërëm o xay yi yow samas mbokk jamihal xalqi mboolem mbindeef yi kullihim képp ci ñoom wanzur ta ngay xool ilayhim jëm ci ñoom bi ayni lutfi ci bëtum ñewante wa shafaqa ak yërmande shafaq dana firi itam ñeewante ba tey waaye lim dend ak lutf te muy firi ñewante moom it moo tax ñu leen di wutale am piri ngir neexal kon mën ngaa wax ne bi ayni lutfi ci bëtum ñeewante wa shafaqa ak yërmande waqir ta ngay wekk kabira humoo seeni mag warxam ta ngay yërëm saxiira humoo seeni ndaw waraaxi ta ngay sàmmanteeg fii kulli xalxin ci ci bépp mbindeef rek xàq man xalaqa àqi yàlla ma nga xam ne moo ko bind wala yàlla ma nga xam ne moo leen bind wa fil xadiisi nekk na ci xadiis laa tazaalu du dañ ummati sama xeet wi bi xayrin ci aw yiw maa daama li feek sax na saxiruha seeni ndaw yu waqiru di wekk kabiru kabiraha seeni mag wa kabiruha te seeni mag yitam yar xamu di yërëm saxiraha seeni ndaw kun nanga nekk da tisa in di boroomu roy bi xudal a immati ca njubug kilifa ya te mooy saxaaba ya rek radiya yàlla na doole gërëm allahu yàlla taala kawe na anhum walis leen fa tahtadiya kon wala fa tahtada kon da jub nee na bokk na ci teggiin ngay sàmmonteeg jëmmi sunu borom subhanahu wa taala sa digganteeg mbindeef yi lépp looy seq ak nit dee jiital àqi sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo leen bind ndax sunu borom bindul mbindeef yi rek ngir fa kon lépp looy jëflanteeg nit rek dee ci sedd dee dee ci bàyyi xel yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo leen bind lépp looy defal lépp looy defal nit rek na yàlla rek tax. ni nga xamee ne noonu la ko waykat bi waxee te mooy yow sama mbokk maa ngi lay maa ngi lay wax ne mbindeef yépp na nga leen yërëm ta nga leen di xool bëtum ñeewante te ngay wekk ñi nga xam ne dañ laa mag ñi nga xam ne itam ay xale la ñaa mag nga leen di yërëm te ngay sàmmonteeg àq sunu boroom subhaanahu wa taala ci ñoom ndax kat am na xaddis bu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax mu ne sama xeet wi duñu dañ mukk ci aw yiw li fekk seeni ndaw sax nañ ci di wekk seeni mag maanaam ndawi ndawi xeet wi di jox cër mag ñi waaye mag ñi itam di yërëm ndaw ñi nee na sama xeet li feek ñi ngi sax ci lii rek sunu boroom du dañ mukk di leen indil aw yiw mu ne kon nag góorgóorlu lu baax ci roy njubu kilifa yu baax ya jiitu nee na boo ko defee a ah, danga nga jub ndax la baaxaloon ñu njëkk ña rek ñooy baaxal itam ñu mujj ñi hmm. mu ne falaatu jaalis bul toogaaleeg man koo xam ne yàkkunu dana nekk ak bara di gën a mage min ka ci yow bila daruratin ci lu dul lor kamatara ni ki nga gisee misla taallumin mel ni ki xamlu ngeen bokk barab bu ngeen di xamloo jàng na ak dëkk ngeen bokk barab bu ngeen dëkk aw maash wala dund ngeen bokk nekk ci barab boo xam ne da ngeen faa di jëfandiku di lekk walaatu jaalis te bul toogaaleeg maaxoo ànd ak moom fawqal firaasi ci kaw lal fa xaysuma jaalastuhoo foofi xamee ne toogaali nga ak moom fa jaalis hu kon na nga toogaale ak moom bi waqaarin ci ak wegeel za sakinatin ngay boroom ak dal itam maxaxti xaarin ànd kuk xeebu wa bi rasaanatin ak cig dal wala tajlis wala tajlis tabul toog mulaasiqan de aji ñuuxu lëxoo ñeel ko aw xinda wajhihi wala sax ngay toog ca kanamam wala tamudda te bul tàllal itam nax waxoo faag wàllam mooy ci kanamam ba tey rek waxay yow sama mbokk rij say tànk in tajlisaa neem da ngeen toog waxudda te ngay damm itam anhu walif ko tarfaka sab gis nee na ba tey itam na ci teggiin waxtu woo xamee ne danga toogaale ak koo xam ne moo mag te fekk la ko waral loraange moo ko waral moom sax daf lay tere ngay bañ a toogaale koo xam ne moola mag maanaam koo xam ne moo la mag bul toogaaleeg moom ci kaw bu lal wala ci kaw bu photo wala foo xam ne rek dafa kawe nga fay toogaaleeg moom lu dul ne ngant yi mu lay bëgg a wax mu ne lu ci mel ne ngeen bokk barab bu ngeen di jànge lu ci mel ni école nga xam ne dañuy teg sées yi nga toog moom it mu toog moom moo la mag waaye comme barab bi ngeen bokk di fa jàngee rek loolu du ci dara mën ngaa toog ci sées moom it mu toog wala sax ngeen bokk di dund ngeen bokk dëkk ci kër ngeen bokk dëkk ci kër xëy na amuñu feneen fuñ mën a toog fuddul ci photo yi nga toogaaleeg moom itam ci photo yi tamit bu dee lu mënta ñàkk la moom it terewula ko waaye na ko def itam ci ak wegeel ak ci ak dal ak ci ak ñoŋ mu joxewaat beneen misaal itam lu mel ni ji itam ngeen bokk di lekk lu ci mel ne barab yi nga xam ne dañuy jaay lekk lu ci mel ne restaurant yi ngeen toog nga xam ne faaw rek ngeen toog ci sées yi ba tey foofu itam mënoo toog ci suuf moom muy toog ci kaw hmm. kon lim la njëkk a tere mooy bul toogaale ku la mag ci kaw waaye boo demee ba di ko def itam na ko ngànt yi waral comme yi mu lim léegi ngeen bokk fu ngeen di xamloo wala ngeen bokk dëkk wala ngeen bokk di dund maanaam di lekk dara dafa ngeen toog ay sees la bu boobaa bu boobaa loola ngànt la waaye nag li muy doon doon doon ngànt nee na toog gi nga toogaale ak moom na nga ca wane ak yaru wane ne yow daal ngànt moo waral nga toogaale ak moom ci kaw kat waaye nag eh, boo sañoon doo toogaale ak moom ci kaw kon na nga wane ak yaru ci sa toogin nga wane itam ak dal ci sa toogin tey booy toogaale ak moom itam bul ko ñuuxu bul ko ñuuxu wala ngay toog itam ci kanamam wala sax ngay tàllal sa kanam wala wala ngay tàllal sa loxo ci ci ci ci kanamam comme mu toog nga toog ba pare nga jël sa tànk yi tàllal ko ngay tàllal say tànk ci kanamam loolu itam bul ko def moo tax ne yax dafa jubloo wax ne anna min husnil adabi bokk na ci teggiin bokk na ci rafeti teggiin an laatu jaalisa ngay bañ a toogaaleeg man koo xam ne huwa moom ak baru moo gën a mage min ko ci yow illa li daruratin ndere ñeel lor lor ndere ñeel min lu mel ni ci lu mel ni ci xamlu aw maxaasin wala dund aw sukna wala bokk dëkk wa naxwi zalika ak lu nuru loolu wa isa jalastahu ndem toogaale nga ndem toogaale nga ak moom fa jaalis hu na ngay toogaale moom bi sakinatin ci ak dal wa waqaarin akuk wegel wa rasaanatin akuk dal ba tey wala tajlis bul toog hinda wajhihi fa kanamam aw mu laasiqan wala nga koy ñuuxu wala aw mu laasiqan wala ngay aji ñuuxu loxoo ñeel ko aw tamudda wala ngay tàllal rijlaka say tànk naxwahu fa ak wàllam wa xudda na nga damm tarfaka sab gis xan xuwalis ko wala tukassiri tabul baral itam al iltifaata geestu min xayri xaajatin ci lu aajo fa innahu naka naka loolu moom geestu ci lu aajo min alaamatil jahli bokk na ci màndargay riir wa qad qaala wax na allahu yàlla taala kawe na qul lil muminina qul lil muminin te mooy xul waxal lil muminina ñeel waay gëm yaxuddoo ñu damm min absarihim ci seeni min absarihim seeni seeni gis wa ilayhi te jëm ci loole asaara la junjee bi xawlihi ca waxam ji ne wala takun bul nekk mukassiral tifaatin di aji baril gestu min xayri wala boog ilal jihaati jëm ca wàll ga min xayri xaajatin ci lu dul aajo danga naan wala takun bul nekk mukassiral tifaati di aji baril gestu ilal jihaati jëm ca wàll ya min xayri xaajatin ci ludul aajo fa innahu nako loolee de yabinu dana bir alaamatal jëxli di màndargam réer wa fi kitaabillaahi nekk na ci téereb yàlla bi qul lil muminin qul lil muminin na nga nekk itam mumtasilan di aji dégg ndigal li amri zil ñeel ndigali borom mbindeef yi jaa a dikk na fil xadiisi ci xadis ba inna rajulan inna rajulan loolu ab xadis la waxaala wax na itam xidman ca bu yàgg shaahirun ab waykat wa innaka wa innaka moom it aw way la dina ko indi fala takun bul nekk kon mu jiilan di aju wëndeel tarafaka sab gis dëxëran diirub jamono nee ba tay bokk na ci rafeti teggiin moy lim la waxoon léegi rek bul toogaale ku la mag lu dul ne ngànt moo ko waral boo toogaalee ak moom itam nanga nga toogaale ak moom ci ak dal ak ci wegeel bul toog ak moom di ko ñuuxu bul toog itam ci kanamam bul tàllal say tànk yitam ci kanamam bul jël sa gis itam di ko fixé maanaam boo toogaale ku la mag itam bul ko xool rek di ko fixé bul baril itam ab geestu ci lu dul aajo ndax yonente bi sallallahu alayhi wa wala sunu borom waxoon na ci alquran ne yow yonente bi waxal jullit ñi nañuy damm seeni gis ndax nee na di gestu ak di xool lu amul njariñ nee na loolu màndargam réer la nee na kon nanga nga dégg ndigalul sunu borom subhanahu wa taala ci loolu mu digle te mooy ñuy damm suñuy gis te it am na waykat bu wax wax ju mel noonu dina ko indi moom it moo tax mu ne yax dafa jubloo wax ne annaka naka yow waajibun aju war la ci yow antam tase la ngay dégg maa la nga xam ne amaraka digal na ko digal na la ko bihi ci moom rabbu ko sa borom min xaddil basara ci damub gis li anna fil xadisi naka nekk na ci xadis anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naka yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xaala wax na inna rajula naka waaja la yansuru dana xool an nasrata ab xoolin yan xalu boobu dana yàqu bihaa ci moom xal bu xoo xolam ba kama yanqalu ne ko muy yàqoo al adimu derba bi fi di baaxi ca sebej laa nga xam ne du jariñu laa yantafixu du jariñu bi ci moom abadan faaw wa qaala wax na ashaahiru waykat ba wa innaka naka yow in arsalta ndeem yabal nga tarfaka sab gis raa idan muy aji wëndeelu li qalbika ñeel sa xol ataxabat ka xamal ne kon sonal nga sa sonal nga sa bopp rek almana wala ka sonal na la ataxabatka sonal na la almanasiru ya ñuy xool raayta ndax gis nga kat allësi la nga xam ne laa kullahoo dit léppam anta yow xaadirun ngay aji attan alayhi ci moom wala anta te déet yow saabirun ngay aji muñ an baxdihi walis lennam lim la doon wax rek moom lay sarawaat ba tey mu ne euh, sunu boroom subhanahu wa taala dafa digaloon yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko na wax jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi ñuy damm seeni gis nee na nag kon war na ci yow ngay topp ndigal loolu nee na itam am na waykat itam bu wax wa innaka moom it dina ko indi yonent bi sallallahu dafa waxoon ne nit dina xool benn xool boo xam ne xolam mën na caa jaaree yàqu ni nga xamee ne der buñ koy sibij di ko defar di ca def ay nenn baki gadora ngir bëgg koo defar man mu jaare fa mu jaare fa far yàqu nee na xol yi tam mën naa mel noonu benn xol rek mën naa tax xol booba sànku yàqu nee na waykat bi la waxoon itam ne am na waykat bu wax ne wa innaka mooy wa innaka gii ngay gis waykat bi dafa wax ne bu fekkente ne yow dangaa yabal sab gis muy wëndeelu maanaam say bët di xool lu ko neex nee na bis dina ñëw de di nga sonal sa bopp ndax di nga gis loo xam ne a ah, doo ko mën a muñ danga gis loo xam ne amoo kàttanuk man koo muñ kon jël say bët lu ne nga xool ko rek loolu ñàkk teggin la kon damm ab gis ay teggin la te mooy booy xool di baña a nit ñi booy xool itam ngay bañ a xool yitam lu amul njariñ loolu yëpp teggin la kon foofu la ñuy yamale bind bi ba beneen yoon incha allah su ko defee kon li nga jot a jàng tey rek li lenn la mooy euh, mbindeef yi ngay ànd ak ñoom tey bàyyi xel yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mi leen bind maanaam del ànd ñoom rek ngir jëmmi yàlla mi leen bind nga leen di yërëm di leen xool itam bëtu ñeewante ak bëtu yërmande ña ca mag ña la ca mag nga weg leen ña nga ca mag yow nga yërëm leen bul toogaale itam koo xam ne daf la mag lu dul ne ngànt moo ko waral lu dul ngeen bokk di lekk wala ngeen bokk barab bu ngeen di xamloo wala ngeen bokk toog foo xam ne mënu leen a ñàkk bañ a toog waaye bu ngeen demee ba toog itam na nga wane ak wegeel akuk dal akuk toroxlu ci wan ko ne toogaaleeg nga toogaaleeg moom ñàkk pexe moo ko waral rek waaye neexu la boo toogaaleeg moom itam bul ko ñooxu bul toog itam ci kanamam bul tàllal say tànk itam ci kanamam bul ko fixé itam say bët di ko xool rek bul fixé say bët yitam di ko xool bul bari li looy gestu itam toogaale ak mag di bari looy gestu lu ne nga xool ko itam bul ko def kon loolu mooy bindu tay bi ñu leen jox dig daje ci bind bi ci topp incha allah